La 221. Abonnez-vous. Non non ça tasse de sang hein? muy accident bu métti ah boo génnee Tiwaawoon jëm Pire gis nañu noonu sapeur ñu ngi noonu oto bi moo daan woon bis bi moo daanu dafa yeboon ay client moom nee nañ horaire njum njum jugee Dakar jëm Fouta ñëw ba génn Tiwaawoon accidenté am na trois morts. Hmm? waaw trois lañu wax gars am na trois mois xam naa après nañ jël chef sapeur. Dakar News 221 abonnez-vous.